dafa nekk benn symbole symbole boo xamante ni nag dafa foor parce que xale yi ngeen gis ñu chanté hymne national juróomi at ci ginnaaw kenn xalaatu ko woon ñun xalaatuñu ko woon ñoom seeni waajur xalaatuñu ko woon parce que amuñu woon possibilité boo xamante ni dañ mën a def lu mel nii école bi gën a jege mooy école Diogo te fukki kilomètre la donc xale yi mënuñu woon di dox di dem foofu bi GIE bi GCO defee réinstallation bi dafa xalaat ni kon nañ ci boole école mu waxtaan ak inspection d'académique bu Tivaouane pour ñu def fi école école bi ñu commencé ñeenti classe la woon tey nekk na juróom-benn classe ak bloc administratif ak logement des enseignants ak verger verger scolaire directeur bi nga xamante ne mooy monsieur Niakhate moo fi jëkk nekk directeur moom kese moo fi jëkk a nekk euh, euh, euh, monsieur fay bi nga xamante ne moo ñu ko proposé. dafa amoon jaaxle pour kan moo fiy nekk parce que fii dafa xawoon ruqee tuuti pour nga ñëw fii dafa xaw a jafe mais moom moo wax ni man de dinaa fa jéem a dem sans aucune condition mu ñëw tey aujourd'hui moom nekk na fi dundal na lii ba tey école bi ci performance yi gën a mag ci zone bi ci lañ ko boole grace à ses élèves ak enseignants yi nga xamante ne après fekk si nañ ko fi parce que am na enseignement enseignant arab am na aussi yeneen ñaari enseignants yoo xamante ñoo ngi ko ci ñoo ñoo ngi si bokk si di liggéey ak ñoom ci liggéey bu am solo bi élèves yi aussi fii ay at yu néew ñun yaakaar nañ ni dañu mën a remplacer si usine bi ak ay diplômes yu ñuy am lu ñuy gën di dem boo gisee ñu dajale village yi fii yëpp dañu bëgg créer benn pôle économique parce que ay dëkk lu nit ñu di gën a bëri ñuy am chance non seulement ñu nuy gën leen jàppale mais aussi ñu profiter ci financement état bi parce que état bu nit ñi gënee bëre dina ko yombal mu financer foofu donc lool moo tax ñu dajale leen ci zone bi zone bi nga xamante ne aussi eaux et moo ñu ko déjee nit ñu kat boo leen dee tuxal ay nit yóbbu leen ko fay donc loolu moo nekk fii ñoo leen di sant di leen gërëm wasalaam. maa ngi tudd monsieur Issa Niakhaté nekk euh, ku fi jàngalkat bu njëkk a jaar si école bi waaw d'ailleurs mooy directeur école bi présentement waaw donc euh, école bi école GCO e la tudd. ñu ngi koy tuddee usine bi usine bi nga xam ne moo ko créé waaw mu usine bu toxal population bi indi leen fii moom lañ tuddee école bi tey école bi euh, mu ngi am presque trois cents élèves te polarisé six à cinq à six villages villages yooyu nag ñooy village bu Fott site premier site de recasement bi Jogomaay Génn Guddi Kër Wuro Korka Kër Gama ak euh, Euh, comment dirais-je village bi nekk fii tout près là je voulais le nom Jogomaay début bi amoon nañ jafe-jafe parce que école bi door moom ñëpp xam nañ il faut que mu am ay jafe-jafe waaw parents yi amoon nañ réticence bëgg ñoon indi xale yi te aussi euh, école bi amuloon doole lool mais tey loolu yëpp fàtte nañ ko fàtte nañ ko donc école baa ngi def ay jéego muy si côté résultat yi comme côté inscription waaw résultats yi aussi évaluation yi ñu fi jot a def si presque dix huit écoles yi fi nekk ñu ngi si trois à quatre meilleures écoles yi. voilà côté effectif aussi bu ñu jëlee effectif écoles yi yëpp malgré ni école bi moo moo mujjee juddu si école yi bokk na si école yi mujjee juddu si zone bi mais côté effectif aussi ñu sommes euh, ñu ngi troisième position voilà donc euh, loolu yëpp ay avancé la ñu nga xam ne. waaw examen yi di ñëw d' ailleurs ci la ñuy présenté suñu première génération bi. mooy ñuy def CM2 dinañ passé en 36e ak CFE ah.